continue waxtane ci li nga xam nak moy ki kii di Kalidou Koulibaly c'est imminent Kalidou Koulibaly fay dem fa nga xam moy ci Londres également par rapport li nga xam aussi mom moy donc contrat bi mu fa am ak aussi suñu gaynde yi foot local bi nga xam trophée COSAFA bi hein, tournoi COSAFA bi ñoom ñoo dóor Zambie loolu yëpp nañ ci indi ay léral félicitations suñu gaynde yi les euh, protégés de Pape Alassane Thiaw mi nga xam ñom nag ñoom ñoo mëne woon un but à zéro un but de Camara un magnifique coup franc donc par la suite nak le wa Zambie dal di duggal ci ñaarelu pàcc bi ñu dem nag série tiro bi Sénégal daal di 10 buts à 9 donc pour man prouesse la équipe nationale Sénégal ñëpp d'or, ñëpp dugal macha allah ki nga xam nag mooy Crépin Diatta moom actuellement donc mi préparo. préparé di waajal boppam di nàmm tànk yi ak aussi li nga xam nag di defar physique am pour saison bii ñëw dafa bëgg a def saison bu exceptionnel gannaaw bu mu toogee lu tolloog juróom-ñaari weer ba juróom-ñetti weer entraîné wul woon pendant ce temps aussi du côté de Monaco toujours Mbola hein. donc le jeu Mbolo plutôt le joueur suisse hein. donc moom actuellement de ñëw rejoindre euh, Autriche plutôt de ñëw rejoindre li nga xam ne donc équipe bi dit donc Monaco donc le joueur qui évolue actuellement du côté de l'Allemagne Mbolo euh, day ñëw donc nek ci équipe di euh, Crépin diata pendant ce temps aussi ki ngeen gis ni moy Domou, Vinicius euh, plutôt Gabriel Jesus Gabriel Jesus nak ak jabaram ñoo jël seen dom bi dal di koy solal Arsenal bi bu koy wone ne mom moy nek supportrice numéro un bu Arsenal donc par rapport ak li nga xam moy mooy saison bi di ñëw ki ngeen gis ne nag moy yi ah, mooy Julian Nagelsmann moom gis ngeen na ah, scooter la ñëwee entraînement gis ngeen na ah, donc allemand pour vous dire ni ñu simple waaw sonalu seen bopp ci leen leen leen xuleer nagesman lii la ñëwee entraînement lii la delloo tamit daal di ñibbeeg moom gis ngeen ah muy scooteram bi ni deux bi donc également tay entraînement bi amna bo xamné ñepp ne ah, a ngi woon seen geut tek ko ci ki nga xamné moy donc Sadio magnifique Mané ak ki di Robert Lewandowski ngeen gis Lewandowski ci ginaaw ni carrément mom Naby Simon mi wax côté bi mais mom yëgalu ko sax xéram moom mel na moom fi ne nii xelam daal nekkatu du côté du Bayern de Munich mais ki nga xamné aussi hein ah, moy euh, donc Choupo-Moting mom nak fotowu ak Sadio Mané ne ko mon ami sama xarit Sadio Mané donc pour wane que ne Sadio Mané aujourd'hui il n'est pas dépaysé donc africain yi bari nañ fa et que Choupo-Moting c'est aussi un gars bo xamné ne il est très très euh, jovial xarit

ëllëg inshallah allah dinañ def présentation ëllëg wala gënaaw ëllëg moom di Rafinha pendant ce temps Axel Witsel moom du côté du de l'Atlético de Madrid def nañ présentation bi ah. le joueur euh, belge mi ngi nii évoluer du côté de Borussia Dortmund contrat am jeex ñu doon wax benn côté bu jamono dañ koy du côté de Marseille finalement du côté de l'Atlético de Madrid la dem Axel Witsel mi nga xam ne joué Ligue des Champions moom mooy bëgg-bëggam et du côté également de Blues de Chelsea ñoom ba tey ñu ngi wéy di intéressé ci ki nga donc kim pembe bi nga xam nag ñoom dañoo bëgg ñëw renforcer seen euh, équipe bi gannaaw défenseur yu bëri yi fa daal di jóge kii di Kalidou Koulibaly dinañ ci wax ci kanam mais moom bokk na ci ñi nga xam daal Chelsea da leen a ciblé Icardi également Monza muy équipe Silvio Berlusconi yéeg ca première division donc maanaam ca Serie A moom daal fi mu ne nii ñu ngi waxtaan ak Wandanara mi soxnaw Mauro Icardi pour daal di fexe ba li nga xam ne mooy saison bi ñëw bu fekkee mën na ñëw du côté du euh, du Milan euh, plutôt du côté de Monza ki nga xam ne aussi moom ngeen di gis ne Thiabou Bakayoko moom nag ah Marseille da ko bëgg recruter mais moom aussi li koy hésité loo mooy ne doomu Paris Saint-Germain la ah, doomu Paris la fa la juddoo secteur Paris la juddoo moom daal fi nii mi ngi am xel ñaar ki nga xam ne nag xel ñaar mi ngi commencé di di dal ci moom mooy ki nga xam ne mooy Pape Matar Sarr Pape Matar Sarr mi nga xam ne gars tey premier match waxon naa leen ko ci suba en exclusivité ne ki nga xam moy mooy donc euh, Antonio Conte dafa ne dina compter ci mom may ko mu jouer minimum 45 minutes donc jox nako 45 minutes am joué na woné na ci bopam donc euh, et comme on dit rek début la dañuy ñaan yele match yi ñëw aussi mu amat opportunité amat li nga xam moy temps de jeu gëna taxaw gëna woné bopam parce que ki mo waxee Pape Matar Sarr nekk ci si joueur yoo xam tay le Sénégal compte énormément sur eux et que ñoom relève équipe nationale du Sénégal bi ki nak di Raheem Sterling mu nek le joueur le plus décisif sous l'ère de ki nga xam moy donc. Euh, qui euh, dit Pep Guardiola donc mom nak, fi 205 ah, euh, but euh, au total Mingi créé 131 but créé 74 passes décisives au total mu 205 occasions créées Qui dit Nathan Ake également mom ñu ngi wax li nga xam amal moo Chelsea ndax Chelsea Thiago Silva ak di Kalidou Koulibaly ak Nathan Ake dal. la ñu bëgg jël défense bi def défense bu hermétique loolu la ñuy n'est-ce pas Kalidou Koulibaly hein, Kalidou Koulibaly le capitaine de la défense défense en mais également du Napoli wax ko c'est imminent donc on la wara dem ci Londres Londres nak inshallah wara yu mu def visite médicale une visite médicale yi euh, dem fa nga ne saison wa Napoli jéemoon nañ ko def beneen proposition pour teel mais mom fi mu ne dafa nanguwul ben yoon prolonger contrat déjà liko Napoli donne proposer moy mo wàññi salaire am au début mom nak amna lo loo dafa doubler salaire am muy du côté donc de Chelsea les Blues de Chelsea je pense que c'est un peu gars yu bëri la ñuy regretté jamono yu moy Koulibaly lutax demul depuis daawal daaw jéeg wul fi nga xam moy Napoli mais comme on dit rek lu jot yom chaque chose vient en son temps mais ki nga xam jamono dal mom contane lol na lol lool lool lool ci ñëw Kalidou Koulibaly du kenen ku dul ki nga xam moy Thomas Tuchel l'entraîneur allemand le stratège allemand bi nga xam donc mom objectif